salaamaaleykum yéen a ngi fàttaliku jamonoy paludisme choléra yenn maladies yi fi daan am vaccin moustiquaire imprégné ñi nga xam ñoom lañ tuddee woon ay influenceurs ci réew mi niñ ko doon niñ ko doon taxawee taxawaay bi ñu ci amoon mooy ban daanañ jékki-jékki def ay vidéo de sensibilisation du genre le paludisme tue nga dem ci beneen. Euh, influenceur mou répète la même chose Ben, influenceur répète la même chose ben am ben vidéo bu extraordinaire Moi, je pense que fofu lañ toll ci Sénégal ay sant yi ni ñi nga xam ne defuñu seen bopp ay influenceur askan wi mo leen ko def ñoo tax fexé ba tay ji ñu ragné leen ba yenn politiciens yeeg yenn produits di leen di jaar ci ñoom di siiwal yenn bagages yi je pense que ci urgence lañ nekk te ñoom ñëpp war nañ dajalo def une vidéo ne serait-ce que réclamer jàmm ci réew mi

d'accord réew mi fi mu jëm ci kawo waru faa yegg li raam ci ñag bi la jëm donc il est de notre devoir il est de votre devoir vous les influenceurs ku ci nekk na serait nga def benn vidéo même bu doon 15 secondes nga bañ ko iñaane Sénégal vidéo 15 secondes bu doon ko iñaane Sénégal pour jàmm mën a dellu si ci réew mi pour que fii nga xam ne fa lañ jëm ñu bañ faa yegg pour ngeen ñaan njekk ci réew mi ngir yàlla war a suur képp koo xam ne rek xam nga sa bopp xam ne niñ jox na la bopp ñu ngi lay ñaan nga gën def vidéo même bu doon dix secondes bul ko iñaane jàmmi senegal bul ko iñaane réew mi wal salaamu aleykum wa